je pense que sax ki ñu waroon gën a mën a assister parce que boo xoolee. je sais pas ndax ñoom ñoo àndoon ñi muy parce que rappeur souvent suy génn du génn moom kese ñun yàgg nañ di dem concert. Mhm. Euh, gang lay àndal groupe am lay àndal. et mhm. donc ñi ñi njort nañ ne euh, si groupe am la bokk ba léegi donte kenn identifié wu ko li gënoon sage mooy le temps muy filmer mu fexe ba artiste am bu bañ a def erreur. Mhm. parce que kenn xamul euh, daf ndey ci yan état d'esprit la nekkoon ba muy topp c'est-à-dire moom dinañ ko toppee xam nga li di. coups et blessures am na mais mais. Euh, tentative de meurtre da lay def foofu noonu parce que boo jamee ba nit ki gaañu sax nga arrêté mais yaa ngi topp xaw ma ndax gis ngeen image yi xaw ma ngay toppatoo ba mu daanu nga fu mu daanu nga topp di jam jam jam ah. waa ji débattre yàlla moo ko yàlla moo ko dimbal rek ba mu rëcc mais le gars il était prêt à le tuer parce que toj na sa bi déjà yow yow moom nga jiiñ na moom moo ko toj te te nga ko te leeru ko déjà mais comme téye nga ko ba pare kay yóbbu ko ci yoon parce gis du n'importe quoi ngay def si si mbedd gis nga man mën naa def dara. Mhm. ñu baal ma. Mhm. parce que wala ñu bañ cee wax ndax li ma doon maanaam. du ma artiste du ma du ma aw ma benn am euh, ay nit toppuñu ma mbooloo wala dara dara du ma porteur de voix wala yenn yi mais artiste boo xam ne yow da ngay ñëw sur scène am ay fan am tout le temps nga nekk di di kii am na loo xam ne da ngay am retenue mhm. mënuloo topp nit comme sa et puis le gars ñi koy filmer muy muy muy affirmer waaw maa ko jam jàmpas dafa nangam nangam affaire yooyu et le gars continue di filmer mhm. ki filmer aussi j'espère que dinañ ko dinañ ko teg loxo parce que euh, munoo am sang froid boobu ñi ngi jam nit ki man kooku sax sang euh, froid am daf ma daf ma daf ma impressionné munoo nekk di filmer euh, donc genre bu fekkoon ne le gars rëcculoon nit dof moom il allait assister live and direct nit kuy dee en fait mm, mm. ku ñuy rey ku ñuy jàm ba mu dee yow tu as le cran tu as tu as le courage nga nekk di filmer loolu ko en fait mm. c'est c'est c'est hallucinant